Eh, salaam mbokk yi xarit am di jàmm eh, sénégalais citoyen patriote suñu mbokk julit yeeg catholique yeeg ñëpp balaa ñuy commencé ñu ngi souhaiter eh, bon carême a tous nos amis frères sœurs chrétiens yi nga xamante ni tey lañ débuté seen carême bi yàlla ngeen ko woo ci jàmm jàmm dugg ci ak jàmm génn ci ak jàmm Sénégal nekk ci jàmm ngeen ñaanal Sénégal euh, yàlla tegil ko ñi ñi ñi ñu tële ñi nekk fii ci Sénégal yàlla def fi jàmm yàlla def fi salaam. donc tey mbokk yi ñu ñëw comme ni koy defee rek ñun ay sénégalais lañ ay citoyens lañ ay jullit lañu ay croyants lañu ñu yeewu wala sax démb ñu dégg une des torchons de la république koo xamante ni. c'est mal éduqué mag bu bu ñu yarul mu taxaw démb ci internet bi gis benn vidéo muy ŋàññ gën gi mbindeef di défendre ku bon ndaw su bon si nga xamante ni moo jiiñ Ousmane Sonko li ko li nga ko jiiñ nga ciy dugal ku tedd gi nga ciy dugal gën gi mbindeef Moustapha Diakhaté yow sa xel bi Euh, dañ la ci fàtte defal euh, lu ñuy xalaate wala nañ la ci fàtte defal nii dañ la fàtte wax ni yow nit nga wala yow danga def sa bopp mbaam ba yow ngay jël yonent bi ki tedd ki ku gën gi mbindeef bien sûr moo la gën ndey moo la gën baay moo la gën ci lépp moo la gën ci fépp moo gën ku la gën gën koo yaakaar gën keneen ak keneen laa la wax nii da koy dugal ngay nga jël politique koo xamante ni sax dañ koo jiiñ nga koy nga ciy jël di ci dugal yonent bi di ci tudd ndeyam ak baayam noo mais li moo tax Sénégal mënul dem parce que nous on a dirigé wala on est dirigé par des des des torchons quoi su ma rusul saaga naa sa ndey yàgg na mais ñun am na lu ñuy yaree. yow la moo ci yoonu yonent bi la moo ci yaayu yonent yoonu yaayu yonent bi lan moo ci yooyu yoonu baayu bi ba nga coy ba ngay toog di di fen ba pare di fen di ci dugal yonent bi sallallahu ñun kooku la ñu yaakaar adduna ak alaxira kooku kooku mooy suñu weeru waay tey boo taxawee di noyyi wala di ubbi sa gémmiñ googu c'est grâce à lui ginnaaw yàlla ci leeram ngay waxe yow ngay tudd ay waajuram mais mag bu lii la mag bu réew euh, euh, euh, li ma tax yàlla di ñu di ñu di ñu alak à chaque fois parce que ay mag yu réew la ñu am ay mag yu xamadi ay mag yu yu yu yu tekkiwul dara dans la société defaluñ dara société bi lu toog di fen rek di kàcc toog di fen dañuy xëy suba ngoon di fen pour dund ñoom fen moo ñuy dund tey euh, euh, pour défendre xale bu jigéen bu bon bii nii am euh, nga ngay taxaw di ci tudd yonent bi yaa ngi défendre ku bon di ci tudd yonent bi mais yéen doo leen ay nit quoi ay mbaam sax ñu leen gëne ñoo leen gën te kon ay mbaam si dëkk bi sax moo gën yow toog ci télé amoo loo mënti wax yow ah, booy analyser analyser sa sa analyse fenal say fan kàccal say kàcc ñëpp xam ne da ngay kàcc mais loo ci dugalee yonent bi yonent bi sa morom la yonent du sa morom mu ndey du sa morom mu baayi donc ñun nu ñu nanguwulee ñu ñu faagaagal doomu adama wala suñu sem wala suñu suñu suñu mbokk patriote wala suñu mbokk citoyen bu mel ni euh, ku ci mel ni Barthélemy Dias ku ci mel ni. Ousmane Sonko wala ku ci mel ni benn opposant wala ku ci benn benn sénégalais lambda noonu la ñuy ñu ko raw la ñuy défendre suñu yonent bi nga xamante ni ci moom la ñuy roy Serigne Touba nee na roy leen ci yonent bi Maam El Hadj Malick roy leen ci yonent bi Baye Niass nee na roy leen ci yonent bi suñu Serigne su baax sépp dañuy roy leen ci yonent bi ndax mooy gën gi mbindeef tagg nañ ko wayal nañ ko. bindal nañ ko yow nga am audace taxaw ne yow yaay tudd ay waajuram yàlla ji taxaw ne kii mooy seen euh, wéeruwaay ngay tudd politique ah ngay tudd politique di defendre di fen di ci teg yonent bi lii la rek nattu yi moo tax lii rek yàlla dañu ñu teg nattu yi nii parce que yàlla moom buy mbugal ñun ñëpp la ciy boole amul kenn ki moo wala dara mais ñun ñëpp la ciy boole mais lii rek parce que ay mag yu xamul dara yu amul xam-xam yu tekkiwul dara ci dëkk bi ñu dara seen réew li ñu am ni yëpp réew mi ko defaral li ñu am ni yëpp oto bi ñuy kër gi ñu yokk am essence bi ñuy euh, essence bi def seen otoog li ñuy lekk li ñuy naanak ak yëpp dëkk bee ko defal mais doo dégg mukk ñu ne leen ñoom defal nañ dekk bi dara lu dul toog di fen te ci fen yooyu la ñuy dund ji fen yooyu la ñuy dundee defaluñ dëkk da dëkk bi dara comme ni ma di waxee doo doo doo romb ba ñu ba ñu ñu ne la société bële moo ko moom mu ngi employé ay 5000 jeunes ñu ngi liggéey loo defar réew mi. loo defar réew mi yow Moustapha Diakhaté lan nga defar réew mi lan lan nga apoter réew mi amul xaalis bi ngeen sàcc yëpp ak li nga li nga li nga jël ci réew mi yëpp amul dara loo fi tabax wala loo fi teg loo xamante ni jeunesse banque ci gis seen bopp. wax naa la ko man suma rusul woon senegal yi may déglu wala sénégalais yi may setaan wala di ma jox nopp saaga naa sa ndey yàgg na. mais am na am na am na ñu ñuy yaree parce que parce que yéen yabaate la yéen yabaate la xel nangu xel nangu ko sax boo leen di wax maa xalaat doo leen doo leen doo leen tàmbalee sax ci bisimilah rahmaani rahim parce que yéen a ngi da ngeen di jëfur yéen benn nit bi rek moo mu ngi di bëgg ray rey Ousmane Sonko bi rek mu ngi leen di bëgg a rey atanu leen ko benn nit tax na ngeen di jëfur. ngeen di bëgg a dee fu mu toll nii parce que li mu am ci ci ci as néew ngeen so quatre-vingts ans ko ci politique. yéen a ngi nekk def quarante ans ci politique wala cinquante ans de plus amu ko ci politique. tey ngeen di jëfuru ci benn xale bu ndaw di défendre benn jigéen ju bon bu yàq avenir jaa sax dëgg la da ngeen da ngeen da ngeen da ngeen da ngeen da ngeen jël ci ñàkk xelu xale bi comme ni ko Ousmane Sonko waxee xale bi deful dara sax ñàkk xelam ndax jàngul xamul xam-xam wala ñàkk xam du ci du ci âge wala du ci def yëfu yëfu yëfu yëfu euh, yëfu délinquant non non non ñàkk xam mooy ki ñuy utiliser. ñuy utiliser xale bi da ngeen ko utiliser mais ñeen ñi bon ñooñu nekk si biir aux alentours nekk ci ginnaaw xale bi non mais bàyyi leen bàyyi leen booy bi mu dund tiit ngeen fu mu toll nii ba ci tudd yonent bi yéen a ngi jëfur ba ci tudd yonent bi mais yàlla dina leen weer lu dëgg du yàgg du lu dëgg du yàgg bu fekkee nag yonent bi ngeen ci bëgg dugal nag foofu nag ngeen di gasalee seen bopp pax Alioune Badara man awma lu may corriger awma lu may corriger gis nga am na xale yu jigéen sax yu jàngul awma lu may corriger de man dama euh, lépp loo gis am na lu am lu lu ko lu ko yëngal moo ko ëpp doole mais dama ne la man awma lu may corriger am na ñu nekk ci réew mi jànguñu mais ñu ñu seen dignité dañoo liggéey ba toll fu ñu toll boo demee ci ci ci marché ba dañ ko fekk ay commerçant yoo xam ne jànguñu mais seen dignité la ñu màggee la ñu la ñu la ñu la ñu liggéey ba tekki naan ma ay corrigé fii aw ma dara lu ma fi corrigé xale bu jigéen bi xale bu bon la maa ko wax bu bonul woon bu amoon xel dëgg bu ko bu amoon yar yarin bu baax laa la wax nii sama waa ji kon duñ ko teg duñ ko duñ ko defloo lii mu def ko naan ma corrigé aw fi dara lu may corrigé. booy xale yu jigéen yaa ngi fii nii diñ ba dee jànguñu mais ñu ngi diñ am na ñoo xam ne bi saa leen rombee ñu ngi ñu ngi topp seen seen seen yaay di leen jaayal wala di leen liggéeyal ku leen ñëwoon proposé leen million laa duñ faale dañ lay saaga nga naan ma ay corrigé waxuma dara lu may corrigé xale bu jigéen bu bonul woon dañoo xam ne xale bu jigéen bi am na xelu caay-caay moo tax ñu utiliser ko foofu laay waxee j'ai rien corrigé du tout dañoo xam ni xale bu jigéen bu fekkoon xale bu jigéen bu dëgër bu diñ la kenn du ko utiliser. kenn du ko utiliser non mais quand même bu ñu défendre lu indéfendable mbokam mbokam boobu mbokam mbokam bi euh, mbokam kenen ki lu tax utiliser wuñ ko keneen beneen moromam boobu noonu nekkoon ci moom ci biir sànq bi lu tax utiliser wuñ ko. mais c'est parce que xam nañ ni euh, kële moo gën a nooy bopp kee peut-être moom moo gën a am fit pour def lu bon parce que c'est pas ñu ngi wax ni c'est pas la première fois mu def ko am na fitu am na fitu def ko moo tax ñu jël ñu dem jëli ko voilà c'est tout donc nag léegi euh, fenkat yi ñoo ko ñu léegi ñu engagé des des fenkat parce que dañ leen di fay pour ñuy fen léegi ñoom ñooy taxaw ci télé yi ci réseaux sociaux yi di wër di fen di défendre xale bu jigéen bi. ñoom ñëpp ñoo bokk seen seen seen bonte seen bonte ñoom ñëpp ñoo ko bokk ñoom ko ñoom ci ñoom la wëree ñoom ñëpp. mais yéen naka ngeen di comprendre lamp aar mbay xawma ma. yow lay comprendre looy déggee lan ngay déggee moi je défends euh, man de yow déggoo wala yow déggoo sama commencement wu. Euh, live bi déglu woo ko xanaa yow da ma gën a li may wax euh, dafa leer nañ dama ne la je am à Moustapha Diakhaté moom mi taxaw di di tudd yonent bi di tudd ay waajur yonent bi loolu laa la wax ci loolu laa wax wala yow di comprends pas mais quand même am na yoo xamante ni lii moo tax ñun suñu Sénégal luñ bëggee mu avancer si on défend l'indéfendable yonent bi ñëpp a ko bokk. mais duñu duñu duñu tax toog di taxaw di xool ku koy saagol di wax ci moom lu ñaaw parce que lu ëpp tuuru li moo a gars yi duñu nax quoi am arrêtons quoi balaa ñuy wax ñu xool lu ñuy wax yow da ma ëppale ci yonent bi lamb mbay da nga ma ëppale ci yonent bi da nga ma gën a doon julit Mouhamadou Moustapha laa tudd la ma sama tuddee man maa ngi xaar ci kuy dal ci yonent bi nga dal sama kaw loolu foofu laay waxee ci Moustapha Diakhaté démb boo boo fekkee xamoo actualité bi xew demal ci euh, net bi nga xool ko Moustapha Diakhaté moomu nga war a waxal moom mi taxaw di tudd ay waaju yonent bi wala di wax ci yonent bi lu ñaaw demoon nga wax ci ci loolu la ñuy wax parce que du ñu toog ci wàllu politik ñu jiñ fi nit ñu jiñ fi nit ba pare di fi tudd yonent bi foofu laay waxee bu feke na comprendre ma xamal loo ko sa biir bopp bi nga comprendre ko tey je parle de ça bu fekkee kii bi da laa rate dañuy wax si suñ ci torchon yu nekk ci réew mi torchon de la république les torchons de la république ay mag yoo xamante ni am nañu doom ba am sët les avocats fenkat kàccikat des politiciens chiens laa wax ñu taxaw ci télé yi ci rajo yi wala ci internet bi di fen di kàcc ngir benn nit rek bu fi yàlla teg mu ñoo ko mag fuuf mën nañu ko jur ñi ci kàcc ba ciy dugal yonent bi loolu ñu dul nangu nag parce que du ma du ma toog ni may ni may défendre sama réew ni may défendre euh, les patriotes ñi gëm seen réew ni may défendre ñi nga xamante ni ñi nga ca àll ba ñi may défendre ñi nga xamante ni euh, peut-être seen kàddu ye yeggul fenn non ni may défendre yonent bee ko gën fuuf. kon du ma toog di seetaan benn politicien la toog si toog toog si euh, ci internet bi di tudd yonent bi di ci tudd lu ñaaw booy kàcc say kàcc booy fen say fen demal nga fenni say fen mais bu ci dugal yonent bi parce que xam na ni li ngeen di wax li ngeen di wax li li ngeen yónnee yëpp jox nañ leen xaalis pour ngeen ñëw fen jox nañ leen xaalis pour ngeen ñëw kàcc pour ngeen ñëw tilimal doomu jàmbur d'accord jël leen parce que comme yéen moom amu leen ngor ci xaalis gëmu leen seen bopp noonu ngeen di dee yee garaawul loolu ngeen gëm vous êtes des euh, euh, euh, torchons laa la wax de la république vous êtes les torchons de la république nañ leen di fay kon jël leen loolu mais bu leen ci dugal yonent bi ñu ngi koy ñaawlu nag suñu position ak suñu gëm-gëm ci réew mi suñu position ak suñu gëm-gëm ci réew mi muy lan respect à nos valeurs respect respect à nos valeurs respecter nos valeurs jox leen ñu suñu respecter leen suñu valeur démocratie bi am ci réew mi nañ ko respecter loolu la ñuy bëgg ci suñu réew loolu la ñuy gëm ci suñu réew respecté leen suñu valeur loolu la ñu bëgg liberté d'expression dafa am ci réew mi dem leen ngeen liggéeyal sénégalais yi tabaxal leen sénégalais yi ay hôpital yu ñu mën a fajoo yóbbu leen ay ambulance ci ci ci ci àll bi suñu suñu suñu suñu jigéen yi yi wasin ci saret yi dafa doy loolu ñu wax liggéey leen sénégalais yi bàyyi leen fenn sàcc bi suñu gëm-gëm nag du mës a dañ suñu gëm-gëm du mës a dañ nous serons toujours derrière les patriotes nous serons toujours nous serons toujours derrière les patriotes ñi nga xam ne bëgg nañ seen réew non à l'acharnement ñu serons toujours derrière Ousmane Sonko ci combat bi nii te dañ ciy dem ak moom ba fu mu yam neex dinañ ko ci gunge dinañ ci ànd ak moom ba fu mu yam neex Lamine Sarr ma tontu la rek balaa may jeexal fii kenn du fi saaga ku saaga yaa xam wax naa ko léegi ma ni Moustapha Diakhaté mérité na sax lu raw saaga benn ndax li mu wax. mérité na sax lu raw saaga mais ma la man suma ma rusul woon parce que am na lu ñu yaree ñun Sénégal ñun lu ñu yaree mooy lan respe ak ay valeurs yi nga xamante ne koy jox da nga koy da koy da nga koy da koy prôné ci sa bopp muy respe donc tey kenn dàqu ñoo saaga mukk mais ñu saaga non duñu saaga kenn du défendre yonent sax ba pare di saaga yare moom loolu bokkul sax si suñu philosophie kenn saagoo fi li gën li li Moustapha Diakhaté def moo raw saaga lii suñu gouvernement yi di def moo raw sax saaga sen moo gën a bon sax saaga sàcc yi ñuy sàcc di alal bi alalu mbooloo bi ñuy sàcc moo gën a bon saaga yooyu sax ay xeetu saaga yu bon la di nit de viol moo gën a bon saaga donc balaa may terminer ma tontu la ci loolu noonu fii kenn du fi saaga wax naa ko sànq ma ne la su ma rusul woon yéen senegal yi ñu joxante nopp kon saaga naa ko bu yàgg parce que mérité sax lu raw saaga mérité na teg simi ba mu set di di caw Moustapha Diakhaté mérité na simi ba mu set teg ko ci àll di ko caw ba mu wàcc. si yoonu yonent bi ci ci ci ci ci ci ci kàcc yi nii ci fen yi nii ci dili yi ñuy monté lu si yoonu lu ci lu ci tuddee ay yonent bi non mais quand même nga may wax ay waxu saaga fii waxal ci leneen yee sama gars yi maa ngi leen di bëggee Moustapha la comme ni ko mën a xamee rek suñu réew moo ñu tax a jóg patriote de sang à vie Sénégal lañu gëm one love Sénégal one love suñu réew à vie nous serons patriotes te nu sommes derrière Ousmane Sonko xeex bi ñu ngi sa ginnaaw élément Barth la maa ngi lay bëggee di la ziar di ziar ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay bitim réew Sénégal fépp maa ngi jox ñëpp seen wàccuwaay derrière Ousmane Sonko ba euh, ba victoire bi di ñëw parce que victoire baa ngi suñu kam suñu kanam victoire baa ngi suñu kanam de ku ànd ak yàlla doo tiit doo ragal ku ànd ak suñu borom doo tiit doo ragal ku nekk ci lu dëgg doo tiit doo ragal. ku nekk ci lu dëgg doo tiit doo ragal te incha allah nous vaincrons lu dëgg du yàgg yàlla mu ñuy wane seen erreur de communication yi ngeen di def nii yëpp c'est parce que yàlla mu ngi leen di commencer di leen weer incha allah nous vaincrons jaajëf sama gars yi one love déggee naa leen élément Bart la ba beneen incha allah jaajëf